naa leen di yàgg naa leen ko di ngeen am da am taw fekk leen am ñoom ñun ci li gën a ngeen ko bale xaas xaas am waxuma taw feex taw ku bëgg sëñ Tuubaa na waaye yéen xaas ngeen am wasal li yow yàlla yàlla na sax dàkk ba tey di julli yaa haadi yow aji gindee ji wasallim te salmal barke ala ci yonent bi nga xamee ne lam yu saaraka deesu bokkaale ak moom fii saq ci ak raw ñëpp moo leen raw kenn du ko xëccoog moom kenn du ko langoog moom sayidina kookoy sunu sang muhammadin turam di muhammad wal ali julil ci waa wa sax bi ak saxaabaam yépp yaa saami as su'aali yow muy aji dégg laaj yow mi aji nangu ñaan rek la ci nam waaye yaa saamee soali aji dégg laaj nit ki li muy laaj yàlla di ko ñaan di toroxlu waxtu wu ne ca naafale wala ca ñaan ya kooku yàlla moo koy dégg moo koy nangul te koy defal. mu ne yàlla na nga julli yàlla muy haadi bokk na ci turee hidayatu tawfiq la yor ku ko neex gindi ko teg ko ci yoonu siraatul wa inna laaha la haadi la siinaam ila siraatul mustaqim kon yonentu moom hidayatul irsaad wal bayaan la. waaye yàlla moom hidaayatu tawfiq ci moom rek la nekk ku ko neex rek def tawfiq ci moom mu nekk ku jub mu ne yàlla nga julli yow mi aji gindi ji te sëlmal ak dollik bark ci yonent bi nga xam ne raw gim raw kooku moom du ko bokkaale kenn du ko langoo kenn du ko xëccoo kenn kenn ku nekk mën naa tagg sab sëriñ moo raw sama sama nangam sama sëriñ raw sab sëriñ sama yonentoo raw sa yonentu waay waay waay waay yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax ci course bi Sëriñ Tuubaa nee na moom kenn du xëccoog moom kenn du moom moo ñëpp sallallahu alayhi wa sallam ala lasi laysa lahu mujaar yi ca xasida ak mafaati al bisru bu ndaw ba mafaati al bisru suxra kooku nag mooy sunu sang turam di Muhammad yàlla nga julli ci waa këram ak saxaabaam ya yow yàlla mi nga xam ne lu waay di laaj lu ne lu waay di ñaan lu ne su ko ca anam bam ko war a ñaanee koy dégg nangul ko defal ko la muy laaj wasalli yàlla nga julli faw yaa badixo yow muy aji fent bindeef yëpp te xooloo fenn yaa badix yow mi aji fent lépp loo fent te jëleewoo ko fenn kareewoo ko fenn xooloo ko fenn lu ci sax fentik bopp wal tuslimaat sëlmal alala si yonent bi nga xamee ne waxabta jox naa waxabta may naa loxo jëmee ci moom xalama samay xalima minal muharami li ko tàmbalee ci weeru tam xarit ilaa sil hijja ba ci weeru tabaski bi xidmatin ci liggéey boo xam ne jaal taxaa defal nga ko lii ñel ma moom liggéey ba hujja mu nekk sama lay wu nañ mu ne yow sunu borom yàlla na nga juddi yàlla na nga julli yow muy badixon badixon moo sàkk lépp te xoolul ko fenn ñun ñi kenn ku ne lépp looy soxla wala nga bëgg koo karee wala nga bëgg koo def faaw nga am foo ko xool doo koo mën a def yàlla nag asamaan ak suuf ak yëpp kenn du wax ne fii la ko jëlee roy ko fa doo koo mën a def badixon samaawaati wal ardi annaa yakunu lahu waladun walam takun lahu sahiba kon kooku yellul ci mustahil la ca moom muy adapté àndaale waxuma la lu mel ni doom wala lu mel ni àndaale te muy soxna moo tax man yàlla na nga julli yow mi aji fent lépp te xooloo ko fenn te sëlmal ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamee ne man borom tubaab sama xalima yi may naa ko ko mooy jox naa ko ko nga xamee ne weeru mu xaram ba sil hijja muy fekki weer ak ñaar yi am caat mi yëpp dama ko koo jox loolu mooy salaatu sittan bi mat i sittan taati yi ba tax maati say ndax dafa am loo ne ku ci tënk sa bopp rek te kenn tënkul la am nga lay wuleer nañ dangaa tënk sa bopp ne tey dama fas yéene surna bi yëpp bis bu ne muy julli ci yonent bi am nga lay wu leer nañ ndax julli ci bi kenn du ko def di perte donte dangaa tëqoo di ko def rek muy sa mbir muy sa lépp tabaarakalaa kenn du ko def di perte. sëriñ bi nag ne man damaa fekk at mi muy isna asara saxaran fukki weer ak ñaar ma gi ma jël nag lu ko dalee muharam ba jumaada saaniye juróom-benn weer yëpp xasida gu ma ci bind ma di ci tagg yonent bi lu ko dalee rajabul fardi lu ko tàmbalee rajab ba jeexantalu weeru tabaski sil hijja juróom benn weer lu mu ci bind damay julli ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu ne yonent mooy ki nga xam ne may naa ko samay xalima loolu mooy sañootu toog benn bis rek benn waxtu rek benn saa rek lurut julli na ci yonent bi lurut bind na ci moom tagg ko di julli ci moom mu ne nag lu ko tàmbalee weeru muharram ba ci jeexantul weeru tabaski muy tamxarit weer yu ñu nekk ba ci weeru tabaski bu jeexee muy fukki weer ak ñaar yëpp daal yonent bi dama dama koo jox sama xalima sañu maa julli ci kenn sañu maa tagg kenn sañu maa nangam kenn ku dul yonent bi nee na liggéey la boo xam ne nag liggéey boobee moo nekk ci man nekk lay wu leer nañ ñi ci man def naa lii ku ci nekk lay dëgg mooy li looy def nga ne damay julli ci yonent bi juróom benn weer yi juróom benn weer ma di ko tagg laye ngoog lay wu juba ngoog ci lay dëgg moo tax sëñ bi ne yow yàlla ah yonent bi saa sa mooy ki nga xam ne kat may naa ko samay xalima yi minal muharam li ko tàmbalee ci weeru muharam ilaa sil hijja ba ci jeexantul weeru tabaski bi xidmatin ànd ak liggéey boo xam ne bi xidmatin ci liggéey boo xam ne jaal taxaa def nga liggéey bi li ci man xujja mu nekk sama lay nga xam ne waxtu ne mooy layam su ngeen ko gisut ca la nekk suñ ko gisee ca la nekk loolu mooy nit ki soo ko gisee ak soo ko am na ca lam nekk loolu mooy layam sëñ bi nag la doon layam nga xam ne foo ko fekk mi ngi bind di julli ci yonent bi di ko tagg moo don liggéey bi moo doon julli ci bi di ko tagg wasalli yan yàlla na nga sax dàkk di julli wasalli man te salmal yaa baaqi yow aji des ji ta doo faatu yaasal araadi yow mi borom suuf yi asafin yey juróom-ñaar wati baaxi ak déelee asamaan yey juróom-ñaar. ala nabi laay na nga julli ci kaw yonentub yàlla bi kaasifil kurab kade aji wuñu njàqare ya. mooy ki leen di dàq. wa alihi jullil ci waa këram. wa soxbi ak saxaabaam yi nga xam ne sayul kurab borom jege yàlla lañ. wala nga ne sayul kurab bu la neexee borom jaamu yàlla lañ. waxab yàlla na may lee ñel ma ba i xan ay fentin yu yéeme. mustaxsana yet yu ñu rafetlu moo xam ci wéy la mbaa julli ci yonent bi mbaa di ko tagg war fax yàlla nga yëkkati mi ne jëlee ci man xidmati sama liggéey bi ku la sana ci bépp at wajaal yàlla nga def xayaat yi sama dund gépp furxatan mbir mopp mu nekk li mun muntaxa ca kañu tànn ki di yonent bi wa ali ak ñoñam ña nekk mbégte ci ñoom wa sama bi ak saabame na nekk mbégte ci ñoom ñan mooy saxaab yi mu ne sawitu mooy ñay boroom ragal yàlla mu ne yow sunu borom yàlla na nga jullee ko salmal yow mi baaqi mooy ki fee sax tadu faatu ñëpp danañ faatu def alfanaaw kullu man alayha faanin moo koy tegtale waaye kullu na sayin haalikun ilaa waccahu ba tey dana ko tegtale kullu nafsin sayaqutul mawti ku ne dana ci jaar moo tax mu ne yow mi fee sax daal te doo faatu jullil ak salmal te yow sax yaa moom asamaani juróom-ñaari ak suufi juróom-ñaari na nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne njàqare lum tar-tar yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwee rek njàqare daal di dàq wuññeeku mooy aji dàqe li ñuy tuddee njàqare ya képp ku ko topp di ko rey bëgg ko lool njàqare loo am sun borom dàqal ko ci barkeem mu ne na nga julli ci waa këram ak saabaam ya nga xam ne ñoom ñëpp sayul xurab lañ mooy ñoom ñëpp dañoo taxawoon jaamu seen borom subhaanahu wa taala mu ne yow yàlla nag ma ay badaa ihaan badaa ihaan boo ko déggee ay fentin loo xamee ne wax joo xamee ne da ko te giseewul ko ci benn téere xam nga xasida yi sëñ Tuubaa xoolul ko ci benn téere di ko bind ay fent la yu fental boppam yoo xam ne yenn yi ma ngi ko jëlee ci laxul mahfuz yii na xelam mu ñor dégg ak yàlla ni mu toggee xelam xelam teel a yeewu lool ci la ko yàlla mayee nga xam ne xasida bi niruwut ak benn xasida mbindam niruwut ak benn mbind moo tax mi nag may ay fentin yoo xam ne yu ñu rafetlu la waaye na nga yëkkati sama liggéey bi at mu ne rek tabaarakallaahu loolu soo ko déggee mooy liggéey bu ñu yëkkati mooy liggéey bu ñu nangu moo tax ma ne yàlla na nga yëkkati sama liggéey bi ci bépp at at mu ne rek liggéey ba ma liggéey ci at moomee su ko yàlla xoolee na na ko yëkkati kon gis nga ko nit ki at moo dund buy jeex da ngaa war a ñaan yàlla mu jéggal la bàkkaar yi ñu ci def nangul la tuub yi waaye nangul la ca at ma la nga ca def moo tax sëriñ bi ne war fan yàlla na nga yëkkati mi ne jëlee ci man xidma di sama liggéey bi ku ma di jeex balaa ñuy dugaat ci beneen at yàlla nag ma nangul at moomee la ma fa liggéey te mooy julli ci yonent ak tagg ko wajal yàlla na nga def xayaati sama dund gi fopp mu nekk mbégte lil mun taxaa ca kañu tànn ka wa aari ak ñoñña wa sama bi ak saabaam yi nga xam ne sa wi borom ragal yàlla lañ mu ne sama dund gépp yàlla dama bëgg nag yonent bi di ci békk ndax woo bi baqaa iya wax na ko yesuru ahmada sama dund gi mëntoon a ñàkk ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci békk kon dunduk sëriñ bi ba léegi jamono jii may wax ak yéen kenn gisul ko ci saayir te yonent bi sallallahu alayhi mi ngi koy bégee mu ne kon yàlla na def sama dund ci anamu ñaan la fekk def nañ ko mu nekk mbégte ci yonent bi sallallahu alayhi dégg nga ak waa këram ak saxaabaam yi nga xam ne ñoom ñëpp tabaarakallahu ñu amoon taqwa lañ ndax taqwa googu ñu ko royoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku mel ni Seydina Abubakrin ku ragaloon yàlla la ku mel ni Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Aliyu ragal yàlla ñoom ñoo ci jiitu képp ko ragal yàlla. wasalli yàlla na nga julli yaa waarisu yow mi aji donnu lépp gannaaw ba ñëpp faatoo yaay donnu asamaan. waaye du doonuk soxla yaay doonu suuf mais du doonuk soxla yaay mujj nag ne man rek maay li manil mulku yawma lillahi waahidil qahaari bis ni ki tey kenn ci kaw suuf walillahi sama samawaati wal ardi wala bima taburoon xabirun moo tax ma ne wasal yàlla nga sax dàkk di julli yaa waarisu yow mi aji donnu lépp wal tusallimaa te nga sëlmal alal la ci yonent bi nga xamee ne saraftu wëlbati naa la hoo jëmee ci moom xalamaa samay xalima fil bëri def naa ko ci biir jéeri ji ma nekk wal bëri ak ba ma nekkee ca géej ga li wàcce ka ngir sa jëmm ji rek tax nag alkarimi jëraa ji tedd wata xudut da nga womatal faw lii jëmee ci man bii ci darja yonent bi ma arum lépp lu may sakku waxu moom yonent boobu rasulullahi mooy ndaw linga nga yónni ci mbindeef yëpp raafi xoruta mooy aji yëkkatiku daraja mbindeef yëpp moo leen féete kaw ci daraja yaa man yàlla mi nga xamee ne katab bind nga ca lahul mahfuz bii ci darja yonent bi kaw nii nekk gi ma nekk ca dëgg-dëgg xadimuhoo doon liggéeykatub yonent bi faw wa ali na nga julli ci waa kër yonent bi sama bi ak saabaam yëpp kama saab kom ni nga dàqee bi dari samak lor wa waxab ta may li ñal ma maraamee sama càkkutéef yow yàlla muy waarisu mooy kii donnu lépp waaye yàlla nekku ne bu donnee dafa soxla lam donnu waaye loolu day tegtal na moo yilif lépp lu fi mën a nekk rek da mujj bay ko fi tabaarakallahu loolu rek lay tegtale donnu yilif la na moo man lépp lu waaye lu lu waaye tooy tooy da nga mujj waw lu waaye taxaw taxaw da nga mujj tëdd. kon nag bam des borom kooku mooy mooy borom limanil mulk yawma lillahil wahidil qahar mu ne yàlla na nga jul mi aji doon ji te sëlmal bi nga xam ne. samay xalima jox naa ko ko fii ma nekk ci biir jéer ji ci gànnaar ak ba ma nekkee ca géej ga. waaye lu tax ma jël juróom benn weer yi di julli ci moom di tagg ci moom. lépp dama ko def rek ngir sa jëmbu jëw yàlla kon lépp looy def ci yonent bi di julli wala nga koy tagg def ko rek ngir jëm yàlla waaye nag nga ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow sun borom waxtu wu ne danga may womatal lépp lu muy bëgg ci darje yonent sallallahu alayhi wasallam yonent boobu nag mooy ndaw li nga yónni mooy ki nga xam ne daraja moo gën a kawe mboolem daraja yi yow yàlla yow yaay ki nga xam ne ci daraja yonent bi ci nga bindee ci lahul mahfuz ma nekk kuy liggéeyal faw te dootuma wàcc na comme ni nga dàqee sama loor may ma sama càkkutéef daal li mu doon wut yëpp may nga ma ko dàqal ma lor yëpp noonee lay bëggee kon nga julli ci yonent bi ak saabaam ya julli ci waa këram wasalli yàlla na sax dàkki di julli yaa rasiidu yow muy aji jub wal tusallimi te salmal ala wasilati ci sama wasila ba nuuril muslimi kay leerub ak muslim képp ku di julli rek moo daan wax ne ana minallahi wal mu'minu mini ana minallahi wal muslim ba tey mini muslim yëpp ñu ngi bay ko ci man di max naa seen leer mi ngi bay ko ci leeru yonent bi yonent bi a mu ngi tukkee ci yàlla moo tax mu ne jullit ci yonent bi nga xam ne nuurul muslim mooy leeru jullit bi sayidina kookoy sunu sang muhammadim turam di muhammad insil arab mooy teddege arab yi wal ali julil ci waa këram sama bi ak saabaam yëpp pourquoi mu ne kama qada comme ni nga ma fajalee man Serigne Touba al arab samay aaju yi mu ne yow sunu borom yow muy aji jub ko kookoy rashid ku jub yàlla na nga sëlmal ci yonent bi di sama wasila bi dox sama diggante ak yow waaye jullit ñëpp seen leer gi boo ko toppee mi ngi bàyyi ci leer bi yonent bi moom leeram nga ma nga bàyyi ko ci yàlla. kooku nag nga xam ne mooy nuuril muslim mooy sunu sang turam di Muhammad arab yi ki ñuy tiituroo seen gànjaru bi seen wurus wu seer wi lu kenn mëntu jand yàlla feeñal ko ci ñoom seen tedd nga ki tax ñiy bakku ki tax ñi am tedd nga googu kooku yonent bi sallallahu alayhi wasallam la. yàlla nga julli ci waa këram ak saabaam yëpp kom yow yàlla ni nga fajee sama aajo aajo ma doon am yëpp yàlla faj na ko. kon daal bul dëj mukk yow yàlla di julli ci yonent bi ak waa këram ak saxaabam yi wasalli yàlla na julli yaa sa bóoru yow mu ñàkkoon bi wala tusalimaate sëlmal alal la ci ci kaw yonent bi nga xamee ne asaba dàq na ah mu sëri ma di max na dind na wala ma sama jéng bi ko ci sa kàttan huwa yonent boobu almuxtaaru mooy ku ñu tànn ki huwa moom almuxtaaru mooy ku ñu tànn ki saahibul faraj mooy borom wu ñi wal ali na julli ci waa kanam bi ak saabaam yépp kama maxa comme ni alxaraj lépp luy xeeti tiis ak xat-xat yow sun borom yàlla na nga julli yow mi nga xamee ne muñaakoon nga mooy tur yàlla yu mujj ci tur yàlla yi gannaaw ba mu tàmbalee allahu sa ci leem booy xool xasida di ma fàtte al bisri indi na ci ñeenti yoon yoo xamee ne dafay tàmbalee allahu ba ci sa buur bu paree tàmbalewaat allahu ba ci sa bu paree tàmbalewaat allahu ba ci sa buur da nga daan fekk ci xasida yi lu mel ni nga jël ci taysirul asir 99 rek ci ñëw lu mel ni nga jël lu mel ni xaddaay xul fadaay li 99 yi ak xasida yu dul jeex yu bari bari nga xam ne 99 rek lay indi tuddee ko xasida ga tuddee ko aw tur waaye boo xool ma fatihal bisri kubra bii fi salaatu wa taslim ala muqimi sunna 99 tur yàlla ñëw na fi ñeent yoon nga xam ne da koy indi ba mu jeex dellu indiwaat ko di boole di julli ci yonent bi di nga jël yow mu ñaakoon bi te sëlmal ci nga xam ne li ma jéngoon tëj ma ba manuma jaamu sun borom ba amuma ak cawarte tabaarakallahu loolu yonent bi moo ko dindi ci man waaye loolu yëpp bi ko yonent bi dindi nag ci sa kattan la dégg nga booy xool waxoon na ko sa karto is bi xidmatil bi xidmatil maa isani saa xidmatin fil alani loxo wa fakka wala mi kon yonent bi moo dajji jéngam waaye su yonent bi dajjee jéng gi tënkoon sëñ Tuubaa buñ la jéng gi tënkoon sëñ Tuubaa rek nekkul ne jéng yi nga xam ne dañuy jël buum yow sa tànk dégg nga jéng yi mooy lu mel ni bakkan rek lu mel ni saytaane yi koy gàllankoor lu mel ni ëdduna ak bànneex yooyu yëpp nga xam ne day tax nit ki du mën a jaamu borom dafay dox diggante nit ki ak boromam jéng yooyu yëpp yonent bi ko moo dindi ci moom dajjil ko ko waaye bi ko yonent bi dajjee moo tax ne ko bikka ci sa kàttan la de su taxutoon yow jéngi du daje ko yow yàlla yonent boobu mooy ku ñu tànn mooy borom faraj ku ko bëgg te yaakaar ko mu di la wuññul njàqare ci àdduna di la wuññul njàqare yomal xiyaam ak barsàq looy jaaxle jaaxle soo bëggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu di la wuññil njàqare ak foo mën a nekk yow yàlla na nga julli ci waa kër yonent ak saabaam yëpp comme ni nga faree ci man lépp lu ñuy tuddee xaraj mooy tiis alxaraj dafay firi dënn bu xat lu mel ni ñu ne buñ ne xaraja mooy sadruhu daaqa dënnum nit ki dafa xat danañ ko wax ba tey jublu ci al ismu muy sanb muy firi bàkkaar waaye nee na yàlla far na ci man xaraj lu ñuy tuddee tiis tiis rek nga xam ne ay xat-xat ak yooyu yëpp tabaarakallahu yàlla far na ko ci man mu ne noonu lay sàkkoo ne mu julli ci yonent bi ak waa ak saabaam ya moo tax mu ne wasalli yàlla na nga sax dàkki di julli yaa sa bëru yow mu ñàkkoon bi wal tusallima te salmal ala la ci yonent bi nga xamee ne asaaba dàq na ani mu ma di max naa dindi na la yore max naa dindi na wala maa sama jéng waaye bi ci sa kàttan la ko dindee yow yàlla huwa moom kooku may wax nga xamee ne moo dindi jéng gi ma tënkoon waaye dindi ko ci sa kàttan huwa moom al muxtaar mooy tànn ko kon ñu ngi koy bëgg a xam mu ne saahibul faraj mooy borom bu ñu njàqare mooy yonent bi sallallahu alayhi wala ali julil ci waa këram bu sama bi ak saabaam yëpp kama maxa comme ni nga faree ci man alxaraj lépp luy tiis luy xat-xat daal nu ko yàlla faree ci man noonu lay sàkkoo ba tey tabaarakallahu sun borob julee ko ci yonent bi sëlmalee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ajmana wahab yàlla nga may loxo ñeel yonent bi saa ci gi xasida bisaani mi ci wii woy abada faw nang ko ci maye xayra bu saaraatin ngën gi ay mbégte wa abida yàlla na nga saxal faw saf yi samak sell yàlla xasida gi ma def ba muy jeex si nag dama bëgg nag ngën gi mbégte mbégte yi gën ci sa xeeti mbégte yi ngay jox yonent bi sallallahu alayhi mu di ci bég dama bëgg nag xasida gi moom na nekk ngën gi mbégte ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye nag man it nang ci saxalee samak sell sel gi nekk ci man nga xam ne damay bég rek dara duma nëxal ah dama bëgg nag seetlu goog di gën di continuer ci barkeb xasida gi waxtu bi yàlla na nga bindal loxo jëmee ci yonent bi salaa yàlla na nga julli allahu yàlla ali ci yonent bi musalliman di aji sëlmal ci moom bi kulli man ànd ko képp koo xam ne waalaahu méngoog nag yonent bi na nga bindal yonent bi xadda xurufi saa sa nisaami li mi xarafi gi xasida masaratan lépp nekk mbégte jëm ca moom yaa waaxiba yow mi aji maye alxisaam may da way màgg waxut yàlla na nga womat lisan nisaami ci wëy min ka tukkee ci yow barakaat ay barke waskur yàlla na nga sant sakanaati samay dal ma xan yépp wal xarakaat ak sama yëngatu mu ne yàlla yàlla na nga bindal yónent bi gannaaw loolu yàlla na nga julli ci moom sëlmal ci moom ak képp ku ñëw gannaawam gëm ko di ko rey di ko xencu nekk ci la yónent bi nekkoon mu ne xasida gi buñ xoolee nga xam ne mën na 700 nangam bayit boo ko doon topp xaraf par xaraf bayit rek moo njëkk a bëri bayit rek njëkk a bëri waxuma laa nag yi te xaraf loo xaraf moom mooy waaw xaraf la alif xaraf la kaaf xaraf te yooyu yëpp Sëñ Tuubaa nee benn bu ci nekk la ma yàlla di fay ci xasida yi xaraf par xaraf xaraf par xaraf la ma yàlla di fay kii jàng xasida yi itam noonu la ko yàlla di fayee xaraf par xaraf bu la yàlla may ijaaba ci xasida yi xaraf par xaraf lañ lay fay. mu ne na bindal yonent bi gannaaw bala nga koy bindal na juli julli ci moom sëlmal ci moom ak képp ku ñëw gannaawam topp ko di ko roy limi xarafi xasida gi xaraf wu ci nekk na nekk mbégte ta mbégte mi mi ko yàlla def kenn du xam nu muy toll kat ndax bu doon benn mbégte rek yonent bi dana ci bég waaye xaraf yi nuñ toll kenn xam nu mu toll. dama naan ku ko doon jéem a bëgg a xam sax manes nga koo xam waaye du ñàkk nga juum tabaarakallahu léeg-léeg kon nag mu ne limi xaraf yi xasida gi gépp xaraf wu ci nekk na nekk na nekk mbégte moo xam ne sunu borom da koy jëmale ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi du jeex nag limi xaraf yi xasida dal na nekk ay mbégte yi du jeex. yow yàlla mi nga xam ne lu waay bëgg te jaari ko ci yonent bi nga defal ko ci la gën a màgg damaa bëgg na xasida gi nga womatal ma ci barke bu bàyyi ko ci yow ñëw ci man waaye nga sante ci sama yëngatu sante ci samay dal ndax kuy bind xasida faw ngay yëngatu faw ngay dal kon nag mu ne waxut na ko xomat lisaan nisaami ci wii way min ko tukkee ko ci yow ñëw ci man barakaat barke was waskur yàlla na nga sant sakanaati samay dal maan yëpp wala xarkaat ak yëngatu yi wa basiri yàlla na nga bégal almuxtaaru ka ñu tànn ka kulla sahrin ci bépp weer wa kulla yawmin ak bépp bis maa kulli daxri ànd ko bépp jamono bi xidami ci sama liggéey bii ci nga koy bégalee li wàcc ka ngir sa jëmm ji rek alkarim ji ji tedd wakun yàlla nga dolle nekkal li ñeel ma bil bisri ci mbégte wa takrimi ak ak teral muy tiraanga mu ne yàlla nga bégal yonent bi di muxtaar mooy ku ñu tànn weer wu ñëw rek bégalal yonent bi bis bu ñëw rek bégalal bi ba yàgg sax mu ne jamono yëpp del bégal yonent bi nga xam ne loolu fu ne bi fi sëñ bi nekkul ci saayir sax ñaan gi ba léegi mi ngi dox di continuer bu adduna tukkee sax ñaan gi mi ngi dox ba léegi di continuer ndax daxru moom génn adduna yawmal xiyaam ci daxru manees na ko cee boole moo tax na nga bégal yonent bi weer wu ñëw rek ak bis bu ñëw ak jamono yëpp mu tënk ko ci sama liggéey bi kon te liggéey mooy xasida yi mooy xasida yi kon xasida yi mu bàyyi fi bis bu ne boo ko yëgee ak boo ko yëgut yonent mi ngi ciy bég te yàlla ko ciy bégal weer wu ne boo ko yëgee ak boo ko yëgul weer wu dee rek yonent bi ngi ci bég te yàlla moo ko ciy ba jamono di tukki ba ëdduna di tukki yonent mi ngi ciy bég te yàlla moo ko ciy bégal te nee na ko lépp li wajikal karim ngir sa jëmm ji tedd ji rek laa bëgg nga bégal ci yonent bi waaye man mi ko taalif nag muy xasida yi te muy liggéey bi nag ma ci nekkal waxtu ne may bég maanaam soo ko doon misaan nga bu ma mer bu mo merati gis nga ko wala kon bil bisri wa takrimi moo tax mu ne wakkun na nga nekkal li ñal bil bisri ci mbégte wa takrim ak teral waxtu ne dema teral rek di ma defal mbégte mu ne subhaana rabbika tudd na ma sell ak buur bi rabbil asiti yàlla muy borom tedd nga am ay sifoon walis lépp luñ koy melal ci ay doom ak i caaju mun jàmm ju sax dàkk alal mursalina yàlla nekk ca kaw ñi ñu yónni ñëpp di yónent ya walaam du meloo sax dàkk te rafet lii laay aji sax la ñeel yàlla rabbil alamin yàlla muy borom bi defi mu ne maa yàlla mi nga xam ne mooy borom tedd nga maa ngi koy sori lépp lu ko musrikoon yi di ko bokkaale di ko nirule te lépp dafa jomb ci moom muy lu mel ni doom ak ya te yàlla jàngeen ci alquran mu ni subhaanahu wa taala ama yusrikoona yu mel noonu suñ koy wax di melal yàlla doom tabaarakallahu gis nga yàlla ni muy sellalee boppam di sëril di ko sëril boppam moo tax mu ne jàmm nag yàlla nekk ci mboolem ku yàlla mosu yónni nga xam ne ab yónnante la bu tukkee ci yàlla yàlla yónni ko maa ngi koy ñaanal jàmm cant yëpp daal ñeel na yàlla ak melokaan yu rafet yëpp moom muy borom bi ne fi lépp daal moo ko yeyoo kon xasida gi tabaarakallahu fii la yem booy xool xasida gi nag dafa mel ni am na bayit yu ci dugguloon te bokkuñ ca kon boo xoolee lépp dafay nekk ñaari junne bayit ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn ñi gën koo xam ci mille 2706 loolu nag booy xool dana la jox ay turu yàlla lu mel ni ñeenti turu yàlla. waaye ñeenti turu yàlla yooyu lu tax mu jàpp ko yëpp day tegtale xasida gi lu yàlla nangu la lu mel ni sakkuuru tur yàlla wax ñëw sakkuuru xam nga ñëw na ci xasida gi ay yoon te léeg-léeg mu tudd ko sax ne yàlla maa ngi lay ñaan nga def xasida gi nga nga defal ma xasida gi mu mel nii tabaarakallahu ci yonent bi dana ci lu mel ni turub ñi rafion rafion mooy aji yëkkati nga xam ne boo bindee moo koy nangu boo defee jëf ju baax moo koy yëkkati lu mel tur wu ñuy wax muux nii muux nii mooy mooy kii xool ku ko neex jox ko lu ko doy sëkk ba du soxlaal kenn ci nit ñi mel ni latif latif mooy ku ñeewantu nga xamee ne mooy ku ñeewantu ñeewantu jaamam ñëpp waxuma ne sax jullit ñi waaye jaamam ñëpp la ñeewantu ñeenti tur yàlla yi fu ne boo ko àndadee sakkuuru soo ko àndadee raafixo nga àndat ko àndat muux nii ak latifu ñeenti tur yàlla yi mooy deux mille sept cent six toll li muy béy di te ñeenti tur yàlla yëpp ñu ngi ci biir. te saa bu ko tuddee tabaarakallaahu moom ñeent tur yàlla yëpp da nga gis ne dafay ñaan ci biir xasida gi na yàlla yàlla nag defal xasida gi nag ma nangul xasida gi wala nag ma santal xasida gi wala nag ma doyloo ci yow wala yàlla nag ma ñeewantu wala muy sant yàlla di wane ne suñu borom ñeewantu na ko wala muy sant yàlla di di wane ne suñu borom subhaanahu wa taala ñeewantu na ko lu mel ni mux nii xam nga turu mux nii rek ñëw na ci biir booy xool mu ne wal tuxni yaa mux nii daaka xan darar man aslamoo yaa qaabilan mi nii dorar wal tuxni ah baabaka an rukuni ila idaka wal tamkini mu ne wal tajali nisaama gis nga kon day wane ne xasidi gi tur yàlla yim jàpp benn benn bu ci nekk su koy tudd ci biir rek day wax na nga def xasidi gi mu nekk mbégte ci yonent bi wala na nga gi nga ko noonu la ko toppee tabarakallahu lu mel ni latifu gim jàpp gis nga ko ci biir wax na ko ay yoon latifu salliyan ala safiqi walaali wa saxbi sawi tawfiqi wa biltu fanna dahra wamu wamhu anni ma kaana min xayri ridaaka minni min yawmi mawlidi li haasal yawmi wajal futóori kuli saw sawmi kon bi mu tuddee latif ci biir xasida gi dana yàlla na nga may ñeewantu diirub jamono te nanga nga far ci man lépp loo xam ne santoo ma ko gërëma ko ci man kon gis nga ko loolu day wane rek maanaam xasida gi nangu gi nga xam ne suñu borom subhaanahu wa taala na ko ci saayir waaye nangu gi nga xam ne borom nangu na ko ci baatin gis nga itam sakoor ba mu ko tuddee tudd na xasida gi nangul ma xasida gi wasalli yaa sakoor wal tusallimi la si bii xabil xalimi li tax mu jàpp tur yàlla yëpp ndax bimu ne sakoor dane wal tusallimi ala la si bii xabil ta xalimi julul ci ci dara jaam muy sakoor ci dara jaam ci nga nangoo samay xalima gi muy xasida gi rek la ci nam di ma fàtte al bisir kubra ak mbooleem xasida yim taalif booy xool itam waxoon naa leen tur yàlla yi nañ baaxoon di xam ci yeneen xasida sëriñ bi daan ko def dafa wuuteeg fii lu bari bari ndax fii waxoon naa le soo roon doon misaal da ngaan dafa dugalante ay xasida waaye gen xasida la xasida yi yu mel ni ik fi nii 99 turu yàlla rek moo fiy ñëw muy sant wala yu mel ni fa fadaaylu muy ñaan lu mel ni tey taysirul asir muy ñaan di tawsul ci turu yàlla yi waaye fii nangam da ko indi ñeenti yoon mooy bi mu tàmbalee booy xool paas bi nga xam ne mooy 52 bi mu ne walilaay lasmaal husna nga war a xam ne kon am na fu mu jëm dafa indi yàlla kat am na tur yu rafet moo tax mu di ko woo ci xasida gi indi na ko ñeenti yoon walilahi lasmaal husna fad'u biha daal ne labayka rabbi wa saxdayka wal xayru kullu bi yadayka abduka da'i bayna yadayka qailan commencé naan yallaahu ya rahmaanu ya rahimu ya maliku salliyan ala man sumiya dégg nga commencé naan wa innakal wa wasalaamu wal muminu muhayminu dégg nga bam demee nag tabaarakallahu ba yegg ci fi nga xamee ne mooy paas 92 da nga jàng mu ne lahu tawajjahtu sa sakuran raja minhul muna bila asan munaja ndax tur yàlla kat jeex na takk dégg nga mu dal di arrêté foofu kon li ma bëgg leeral foofu rek mooy parti bu njëkk bi mooy cinquante deux pass bi ba ci quatre-vingt-douze douzième pass bi booy xool loolu mooy partie bu njëkk bi nga xam ne dafa doon taw tawsul ci tur yàlla yi boole ci di sant di ñaan yàlla nga xam ne làmboo na lépp waaye boo doxee quatre-vingt-treize pass quatre-vingt-treize ci lay commencé waat nag di indiwaat beneen 99 tur yàlla yi yaa ngi dégg mu ne yàllaahu yaa man laa ilaa xayruhu yaa man ataani doona day dayrin xayruhu commencé naan ko antal ilaahu innaka rahmaanu anta rahimu walakal asmaanu di indi noon tur yàlla yi di indi noon tur yi di indi noon tur yàlla yi di noon indi noon tur yàlla yi nga xamee ne da koy teglante foofu moom dafa mel ni dafa jékki-jékki rek mel ni ku ñamali tur yàlla yi rek di ko tudd benn par benn di ko tudd par benn benn moo tax 93 bi la tàmbalee tur yi dégg nga mais 97 bi ci la tur yàlla yi jeex 97 yi paas 97 ci la tur yàlla yi jeex moo tax boo xoolee paas 97 fi tur yàlla yi jeexee mi parteem ñaareel bi da ngay dégg mu ne euh, yaa man ataali qalbiya tarsidu minka walil awsaali yaa rasidu minka ataani sigrakal sigrakal masburu yaa saarifal ahda yaa sabaru ba pare nag mu ne haasa wali salaati bil asmaai rajantu radiyan ma anamay kon foofu mooy ñaareel bi ba tey même ci partie 97 bi da nga jàng bi 99 eh, yi delluwaat na delloosiwaat yàllaahu yaa man laa ilaa xayroo yaa man ataani doona dayrin xayroo daan ne awsil salaatan wa salaaman sarmada ila la si samaytoo muhammada di indi nag ñetteelu ñetteelu partie bi nga xam ne dafay indiwaat 99 yi indi na ko ñaari yoon dégg nga bii ñetteel bi la 97 97e part dégg nga paas bi boo demee nag 126 126e paas bi foofu nag lay jeexale ñetteelu partie bi nga xam ne boo xoolee cent vingt six cent vingt sept da ngay jàng mu ne wasalli yaa rasidu wal tusallima ala lasi tafdilu xaton lima wa huwa lasi sumaatu najmun saqib wala ali wasan bi soyul manaqib wasalli akmala salaati yaa sa boor gis nga inna sa boor maa salaamika dawaa man yàkk mooy cent vingt septième paas ci biir xasida gi da ngay fekk nag foofu mooy ñetteelu partie bi ni muy indi tur yàlla yi nga xam ne kon foofu la koy indi ñett yoon léegi nag mu def ñentel bi fi nga xam ne nag moom la koy tëjee da ngay jàng ba tey même ci cent vingt-septième pass bi bi waxe waxee sabur wasali akmal salaati ya sabur ma salaamika daaman ya kabir ala nabika rasulika alam sayidina mahamadin mayil alam foofu nag gisuñ fi mu indi turu allahu dégg nga wala rahman wala rahim waaye dafa jékki-jékki rek ne te waroon na ko indi xaw ma nag ci xasida yi la wala ci mbindum sëriñ bi nag comme moo ko defee nii waaye dana wax wala si samay tuhu bi mujtaba wala li wal asaabi ahli lijtaba وابتلي بجاهي يا باري كوني باق بلا مباري فيك وقد نفعت بالإخوانا كفيتني الأسواء والهدوانا دوغا اندي وصل يا قدوس تبالا ما wax قدوس ورونا اندي الله اك رحمان اك رحيم دنگا waaye nag dafa jékki-jékki nag bi muy tàmbaliwaat parti bi ci tur yàlla yi dafa jékki rek jékki rek na xudduusu indiwut alaaw tudd indiwut rahmaanu indiwut rahimu indiwut maliku dafa jékki-jékki tàmbali xudduusu ci 127e passe bi. léegi nag boo demee ba 153e passe bi nga xamee ne man nga ne mooy pass bi jiitu pass bu mujj bi nga xamee ne xasida gi yëpp boo koy xool cent vingt cent vingt quatre pass la waaye cent vingt troisième pass bi foofu lay partie bi di jeexee nag muy ñent yëpp foofu lay jeexee da nga jàng mu ne wasalli yaa waarisu wal tusallima ala la si loo saraftu xalama boo wàccee da nga dégg mu ne wasalli yaa sabooru foofu la tur yàlla yem wasalli yaa sabooru wal tusallima ala la si asaba ani walama bikka huwal muxtaaru saahibul faraj wal aali wa sahbi kama maal xaraj kon li mu bëgg a foofu rek mooy booy xool daal quatre vingt dix nekku ne benn yoon la ko fi indi déedéet waaye da ko fi indi ñeenti yoon nga xam ne loolu néew na nga gis ko ci geneen xasida nga xam ne xasida soo ko misaal naan diwaanu boppam la rek diwaanu boppam la te saa bu tuddee tur yàlla ba dafay julli ci yonent bi sëlmal ci yonent bi ba noppi tagg yonent bi ba noppi ñaan ci boromam ñaan boromam ci barke bi yonent bi wala mu sant ci borom na ko yaa ma may lii ya ma dàq lii ci barke bi yonent bi tawhid gu saf sàpp nag dafa fees dell ci xasida gi moom kon xasida gàngoog wax naa la lum jàpp ta ñeenti tur yëpp dafay tegtale ne yàlla nangu na xasida gi muy mi ngi jàpp turu ñuy wax sakkuuru te ku ne xam na sakkuuru waaye rafion gis nga xasida gu sëñ Tuubaa tënkee sakkuuru rafion nga xam ne ku ko mokkal ñu damm sa xalima ak bàkkaar duñu bindal bàkkaar te koo dégg ñu ne ab julit la sa mbokkam taalibe la wala su mbokkam julit mu faatoo nga jàngal xasida gi ñu jéggal ko sakkuuru rafion sakkuuru rafion mooy koo xamee ne mooy nangu jëf yi mooy sant jëf yi jëf yi moom rek moo leen di xool te moo leen di sant waaye itam ak muxni ak latifu ñeenti tur yi sakooru rafion muxni latifu ñeenti tur yi boo ko addadee moo lay jox 2706 moo toll ak li muy bëy di ko loolu yëpp day tegtale màggaayu xasida gi ak ngëneelu ci nekk xasida gi nag li ci nekk jàngoon nañ ci biir sëñ bi wax ne ki koy jàng faaw mu am wilaya wilaya moom kuy jàng xasida gi faaw da nga am waaw wilaya moom jàng moom xasida faaw da ko am te faw gaa yu baax yëpp danañ la ràññee ci fii yàlla yi nit ki nag mën naa nekk di jàng xasida te du xam ci boppam dara te fekk fa gaa yi yàlla yëpp xam nañ ko yàlla sopp na ko yonent bi sopp na ko ñu baax ñi sopp nañ ko sëñ Tuubaa sopp na ko waaye moom du ca xam dara loolu nag nangu moom ñi ngi koy xamee ci farlu nit ki nit ki ni mu gën di bëgg rek jàng xasida ak gën di sell rek gën di lu jëm ci rek na xam ne suñu borom mi ngi koy may ijaaba na xam ne suñu borom gërëm na ko yonent bi gërëm na ko sëriñ bi gërëm na ko kon nang soo ko déggee mooy nit ki am fulla ci lu muy def sax ca saxal ko rek mooy li am solo nit ki daal mën naa am wilaaya ci gàttal bañ bind ko ci laxul mahfuus nit yàlla ñëpp ku ko gis xam ko ci moom te moom du yëg sax borom wilaaya lañ fu ne am na ñoo xam ne boo leen joxoon loxo nayu leen danañ xam ne yow làq ngërëmal yàlla làq ngërëmal sëñ Tuubaa làq ngërëmal yonent bi ga yàlla yëpp gërëm nañ la te yow man doo ci xam dara loolu li tax yàlla di la xañ pour nga xam ko soo xamoon tey mën nga ciy dugal puukuru ak rëy ba yàqule moo tax bëri na koo xam ne dafa dem ba deexaale ngërëm rek te xamul ne sax yàlla gërëm na ko dem na ba deexaaleeg wilaya te xamul ne yàlla jox na ko wilaya dem na ba deexaaleeg ismulaay ansam waxtu wu ne te xamul ne yàlla jox na ko ismulaay ansam demet demet ak yu mel noonu yëpp dafay am ci nit yàlla yi. ndax dafay am loo xam ne su la ko yàlla defaloon ba noppi waxal la ko konoon mën nga cee yàqule dem safara waaye nag nit ñi ci boobu suñ la gisee danañ xam ne yow mii kat am na lu yàlla def ci yow ñi sàkku ci yow ñaan ak yëpp fekk yow doo xam ci yow dara. moo tax gis nit koo xam ne léeg-léeg dafay jàng xasida nangam ku gis naan ko ñaanal ma fasaaleel ma nangam fekk dafa am luñ gis ci moom rek dañoo xam ne kii nit la koo xam ne ku ñaanal yàlla def na ci moom loo xamee ne njortu nañ njort lu rafet ne suñ borom dana ko nangu njort nañ ne nit ki suñ borom rus ko ta fekk moom du ci xam dara lu ñaan yàlla def ko te fekk du ci xam dara kon loolu yëpp dafay am kon nag yàlla yàlla may ñu ijaaba may ñu xëbool may ñi ngërëmal Serigne Touba ci saayir ak ci baatin noo ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo doon topp xasidi gi nafar ak ñun tabaarakallaahu defe naa ne du xasidi gu ndaw waxoon naa leen ne euh, xasida yi moom bokk na ci bi ci ëpp bokk na ci bi ci ëpp te moom li tax ma ne sax man ngaa sañ wax ne moo ci ëpp kanaa lu du diwaan yi ndax xasida gi du diwaan xasida ak boppam la waaye boo ko tënkee ci xasida bopp xasida yu ñuy gis ñun xasida gi moo ci ëpp moo xam nooru daara nekk ya caaju yëpp booy xool yu mel ni nuuru daareen xasida gi xasida gi mën na leen ñett ba ñeent kon du xasida gu ndaw a ah, te ñu bëri jàpp nañ ne xasida gu mel ni nuuru daareen moo ëpp ci xasida yi wala lu mel ni muxadamatul xidma te gii moo ëpp muxadamatul xidma te itam ci uslub bi ko sëriñ bi tëgg muy wëy ndax ñaareel daan nañ gis xasida gu nu toll fekk dañ koy wisar waaye wëy sëñ Tuubaa def ci lu nu toll ndax booy xool xasida yi wëy yëpp xasida yu ndaw lay doon loolu lam ci namu mooy pour ñi gaaw koo mokkal waaye xasida gi moom xasida gu rëy rëy la moo tax boo ci diwaan da ngay fekk xasida yu ndaw xasida fukki bayit fukki bayit ak ñaar juróom benn bayit ñeenti bayit ba ci xasida ak ñetti bayit nga xam ne dañ koy boole mu nekk ab diwaan waaye xasida gi nag nekk 2706 ci ay bayit loolu lu jafe-jafe la ci xasida yi kon loolu dana wane kawe xasida gi ak màggee xasida gi te itam am na jeglet gannaaw géej gi la te gannaaw géej gi moo gën ko doon te xasida yëpp la yàlla nangu xasida yëpp gën xasida yëpp baax waaye dafa rawati xasida gannaaw géej gi xasida gannaaw géej kon mu ngi noonu xasida la goo xam ne daal képp ku ko fonk di ko jàng sunu borom dal la ci defal lu faw sa njorto ci àdduna defal la ko ci barsax defal la ko ci ëllëg yamal xiyam képp ku koy jàng da nga am ngërëmal sunu borom ngërëmal yonent bi ngërëmal Serigne Touba. te itam doo tàggu xiwal da nga dem ba yàlla nocc surub xaalis ak wurus jox la wax na ko sax ci biit yaa xay dan lii fiddatin kaxas jëdi wax na ko ci biir lim làmboo daal kenn xamu num toll kon nag noo ngi ñaan mboolem ñi nga xam ne ñoo ko doon topp tabaarakallahu ku dégg kàddu ngeen ñaanal seen bokkom taalibe ngir mu sax ci liggéeyal sëriñ bi te itam tedde ci aduna ak alaxira jëlee ci xéwal yu dul jeex mukk sun borom yokku tawfiix gi ak mboolem ñi tasaare liggéey bi ak ña koy déglu ak fuñ ko mën di dégloo ak seeni njaboot yi jur ak seeni soxna ya ñoom ñëpp yàlla na yàlla defal leen tawfiix ci saar ci baatin te ñaan sunu borom mu dolli ci réew mi ñu nekk di Sénégal lu ñuy tuddee jàmm defal ko mboolem aduna bépp te xaasal ko fii ci Sénégal noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp di wax rek la yonent yàlla soy bu waxoon in uridu ila lislam mastatantu waaye nag oma tawfiqi ila bila ali tawkat wi li unib di wax ba tey la malayka yi waxoon subhanaka la ilma lana ila ma allamtana innaka antal alimul hakim waaye di wax la Muusa waxoon wa salaamun ala man itabal huda wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf seyxana ahmad al qadim